alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziar ñëpp tàmbalee ziar bi ci ci moom liggéey bi Ahmadul Xadim ki ko fi nekkal te mat ko sëkk sëñ Muntaxa yàlla yàlla gën koo dëgëral mu yàgg fi yàggu kéemaan ñu ànd ak moom ci mépp simbëm kenn bañ ñu caa te ñu daje caak ngërëmul ahmul xaddim jàllale kon ñaan googee ci moom mii ki ci topp ci ci rëkk sësal ñu ci rëkk si ñaa busu ñu ngi lay ziar bu baax busu di ñaanal lii ñu ñaanal sëñ Muntaxa sàllaaw yéen ji jenn la ndax ndax ndax kon yéen it yàlla nañ fi yàgg lool yàggu kéemaan loo si bu ñëkk a caag wér na waaye buñ sa kenn man te buñ ko sareel kenn nit ku dul sëriñ ki moom lépp ziar ñii nga xam ne ñoo la dar te mat ko sëkk kenn ciig mankiwul wax naa ba tàyyi ne loo bëggoon bëggoon lépp jag te ñii nga bàyyi sa kanam amu des sallaaw sallaaw sallaaw waaye ñëpp mat nañ koo ci ne kii la rek da nga naan kooka bu doonu kon moom bi ñëpp daj wax naa ne ak toppante ñenn doyu ñu fa ñu jul waa xi mu xadimatul xidma ci ñoom laay jànge ci ñoom laay roye ci ñoom laay nàmpe ndax mi ngi bëgg a limu yàlla gën a yàgg te wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla dajewuma kenn benn baat mba jënn jëf mbaa wenn xoolin boo xam ne wii damay gis ne lii kat daa soppi lool démb la amu ci sikk sa law ci am ndax ki ñu ki ñu ki ñu ki nose boole ñu mooy doon suñu duyeer fa mu bëgg ngeen jaar képp ngeen di jaar waaye ñu nit fa ngeen bëgg ñu jaar képp la ñuy jaar fas nañ ko yéen daanaka léeg sax duutul jar ndax waaye ah kay dëgg bu mosee aloom na ko gërëmee coy sant nañ bu baax bu sobaali sant nañ bu baax a baax a baax cant koo xam ne sallaaw lépp dëgg la lépp dëgg la ndax la nga waxoon ca booba dama wax saa su ne ne dangaa tiimoon lii wax la nga wax yàlla fekk la caag yàlla sax dàkk békk na ko sëñ Abdoulaye di waxe kanam ahmulu xaddiim ngeen seere ko te da ko mën sëkkit te lu ngeen sewit du doy ndax dangeen ngeen ci am lu ngeen bàyyi lenn nag warulu ko lu dul seel bi yéen a ko teg fuñ ci jaar yéen a ñu jaar leen fii te du ngeen ñu jaar leen fii ba pare gëlëmal ñu dangeen naan jaar leen fii te teg ñu ci yoon wa kon sant nañ bu baax euh, ay tànkam du ñun te moom moom lépp kon buñ nee jamono ju dañuy am yéene topp tànki Ahmadu ci du am tànki gannaaw bu doxee jëm ci kanam du ñun ki nga xam ne dara am delluwut gannaaw moo tax mu jëm kanam dëgg la Touba Ngoye jëpp ngi ñaan tey sant lool seeni xol di sedd guy liit ñu koy wax ci seereel Baye Abdou mii bu ñu jigee xam nañ buñ ko jigee xam na waa ñu nit sàllaaw sàllaaw jigéen diwu leen ndax bu doon dañoo tàmbalee benn tey jii tey jii tey jii tey jii tey jii yàlla na jëm kanam bi fu daaw juróom ñaar fukk la woon ak ñaar ñu noon am nañ yéene mu wéy tey jii quatre-vingts la la ma leen waxoon daaw it laa leen wax ren jii rek lu mu mënti jar fu ngeen ko mënti gis bu leen ne am na ndeysaan ku ma ne Baye Assane da ngay jënd bisaab ma ne waaw loo jënd ma ne ko loo jaayee ñaata paan ma ne ko loo indi ma jënd barke bi amul noonu la demee xëlëf-xëlëf joo xam ne ji maanaam ku ci dégg na ña nga ca da nga naan bu ma ca tëbbuut xanaa kon jërutuma dara noonu la demee amu fen mbaa boog bëriwut waaye te it maanaam da cee jàpp dañoo dem paataar jëndi am ñoo xam ne suñu wet la ñu taxaw seere yaa ngi nii mënuñoo jënd saaku ñu jënd ay saakuy saakuy saaku kon kuy jënd booba sëñ Ahmadou Ahmadou dugal ci xolu jaam ñi dem leen ca gee bañ dellu see bisaab bi doy naa ma leen doone sëkk mat na kon du ñun moom képp san nañ bu baax a baax a baax tey gërëm baab du lam ñaanoon naa mel ni ab séréer la waaye xëy na ndax yàlla fekk ko ca bëgg nañ daal ànd koog yéen bi fumu bi fumu te duñ ci làkk dara duñ ci wër ndombo dara loo xam ne lii ànd bi dañuy dem ba jug lii naan li ëpp naa wax fu suñ ko yéen fu ñu tàmbalee bi fa mu yem lépp luñ jëflanteeg yéen ak muru képp lañ ko seetal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Abdou ñu ngi leen di nuyu lu bare bare bare ci turu suñu kilifa gi toog di sëriñ Afia Bousso di leen sant bu baax te di leen gërëm di amaat. xol bu sedd guyu ci jataay bi ñu bokkaat toog ren ji te toog ko ci at weesu yëpp muy liggéey bu rëy bu am solo bii nga xam ne liggéey ngeen ko Serigne Touba tey jii te yàgg ko ko liggéeyal lool ñuy ñaanit mu gën a yàgg gën a yàgg lool ci kanam muy liggéey bu rëy nag bu rafet boo xam ne xel dal na ci lool yaakaar am na ci lool ndax Pastef bi ko jiitu te lal ko ak wéye gi nga ci wéyee ndigalul Serigne Touba waaye gi ndigalul Serigne Touba mooy sunu ànd ci ndigalul Serigne Touba la tàmbalee woon ba ca tàmbalee ba nëgëni lépp lu ñu leen mas a wax lu jëm ci liggéey bi defe ngeen ko nam gën a rafetee nañ leen ko waxee lépp lu mu mën a doon itam buñ ko songee ñoo génne koy ànd song te buñ ci àndeek yéen song ko rek dañ koy daan loolu nag dëggu gi ngeen dëggu ak pasteefu gi ngeen pasteefu ak yéen ji ngeen am ci liggéeyal Serigne Touba moo leen ko moo leen ko may moo nu ko may. kon nag jërë ngeen jëf santati nañ bu baax li wane ne yëf yi waxtu wu nekk day yokk mooy seetlu nañ ni ba mu tàmbalee ci mel na ne ci ñaar fukk ak nangam la tàmbale woon tey mi ngi ci juróom-ñett fukk dana dema dema dem ba danañu jaaxal waaye nag duñ ci jaaxle ndax wax nga ko léegi mbirum Serigne Touba moo bindoo noonu tànki kanam la am waaye amul tànk ginnaaw melaw jamono ak jafek jamono it Serigne Touba xamu ko yittey Serigne Touba xamu ko. mooy lii nga ci wax léegi tam feeñ ci mel na ne léegi rek sëriñ baa ngi koy wax na na ah, ren de moom mel na ne jafe na lool ma ne ko ah waaw jafe na lool de waaye nag waxaat nga tontu nga sëñ bi te déggoo la mu la mu wane nga ne jafe jafe na waaye fu ngeen dem fu ngeen ko daan war amee sëñ Tuubaa yombal na leen ko ba ngeen amee ko na ngeen ko bëggee ndax xëy na du rek ko doon wut waaye jàpp naa ne ni ngeen ko amee keneen du ko ni amee te loolu mooy li feeñ ci sa biir wax loolu nag day wane ne itay sëriñ Tuubaa la sëriñ Tuubaa du yitte du itteem du taxawandoog yitte kenn te képp ku jóg jëm ci it moom moo lay gàttandul boppam kon nag lii gàttandu mii ngeen ci am ba mu jàppandee nii ñëw ci waxtu bu gën a teel bañ ko bañ ko soxlaa xam ne lu gàtt gàtt dana fi am ay fan ñu door koo tàmbali noo ne loolu rek mooy mbir ma loolu rek mooy yoon wa kon nag jërë ngeen jëf duñ ko waxe sax dañ naan jërë ngeen jëfati waaye nag teel na ndax sëriñ bi dañoo boole te cantante gi moom moo ko yaral boppam te ëllëg lay doon incha allahu taala yàlla yàlla buñ ci gis sunu bopp ci dara rek nañ ko àndee nii rek ci pas-pas ji ak ci yéene ji ak ci jublu gi ba ba ñuy teew ci kanamam. nii mu ñu ko digale woon jaarale woon ko Cheikh Mouhamadou Lamine ñu di ko sàmm jaarale ko Cheikh Sidil Mokhtar di ko sàmm ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nañ wëy rek di ko sàmmee noonu ba ci kanamam moom mi nga xam ne moo ñu ko digaloon te jaarale woon ko ci kilifa yooyu ma wax ñu ngi ñaan nag ñu teewaat fi ni kenn bañ manqué te kenn ku nekk ci nun laay wax du ma wax ci yéen ndax ñun ñëpp ñenn ñee kenn ku nekk ci nun luy aajoom sun borom fajal ko ko lu di tawatam sun borom saafaraal ko ko lu di luy yéeneem sun borom mottalil ko ko liggéey bi attan na ko attan na sax lu ko raw gis nañ nag Pastef bi ngeen ci am ak yéene ji ngeen ci am ndax lii rek doyoon na waaye teewul waxtu wu ne suñ demee ba ci biir koor gi da ngeen di dajalawaat loo xam ne moo ëpp lii fuuf gën koo yaatu fuuf gën koo rëy fuuf ngeen di ko ci liggéey bi loolu day wane rek Pastef bi ngeen ci am ak yéene ji ngeen ci am ak taxawaay bi ngeen ci am lu ngeen yéene ju ngeen ci am nag na ngeen xam ne Serigne Touba jëfal ko balu teng si la balu teng si boo ko sànnee nu mu dalee ci miir bi rek noonu lay dellusiwaat ci yow nu mu ci miir bi rek noonu lay dellusiwaat ci yow boo jogee ngir di di ko liggéeyal moo lay jox jumtukaay yi nga koy liggéeyale yombalal la ko ba noppi bàyyee la ndam la kon nag aywa rek ñu dem bu ñu geesu lu ñu weesu nañ ko fàtte le nekk suñ kanam rek nay suñu yitte te waxtu wu ne suba guñ xëyee rek na nañuy am yéene ak pas-pas bu bëgg mu gën a baax suñ ko defee rek sëñ bi ñu fekk ci mu gën a baax ñu ngi leen sant bu baax waaye sëriñ sëñ ñaafee mi ngi yóbbante ay cant ci mboolem waa Touba ak mboolem ku leen di jàppale tey xamal ñi leen di jàppale ci liggéey bi ne lépp lu waaye teg ci seen loxo ak fu ko teg ci seen loxo rek egg na ci liggéeyu Serigne Touba bi kon nag ñu ngi noonu liggéeyu Serigne Touba rek leen ñor lépp kuñ taxaw ci sa kanam wala ñu nga war leen a jàppale ci mbir xamal ne du ñoom ngay jàppale waaye Serigne Touba ngay jàppale kon nag ñu ngi soññi bokk jullit yëpp di bokk soññi bokk taalibe yëpp ña ne ci dëkk ba ñi mënut ñëw ak ñi mën a ñëw ak seen bokk yi nga xam ne ñi leen jàppale ci liggéey bi yëpp di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal ñoom ñëpp di leen xamal ne liggéey bi agsi na lépp luñ ci yéene woon rek suñ borom dana leen ko defal incha allah tey jii nag li ñu fi dajale woon mooy bisaab bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci weeru koor gépp dafa mel ne fa ñu woon mooy bisaab bi dañoo da dafa mel ne sax ci wax waxtaan nii la tàmbalee woon sëñ sant da ngeen a war a fexe nag léegi di bay tool boo xam ne nii mooy bisaab bi jëm ci koor gi loola it lañ ci jublu woon mooy fu mu mën a jógee baax na waaye xam ngeen xam seen xol yu ak seen yéene ju rëy moo tax ñu bëggoon muy jóge ci yéen ngir parce que lañ ci yéene ñu man ko cee am waaye keroog bañ leen ko waxee ba léegi bu xamaguñ fi at mu bisaab nangu xamaguñ fi at mu bisaab gàntu at mu ne rek andee ngeen ko na ko daan na ngeen ko waroon andee lu lu ëpp la ngeen daan andi kon nag ni muy yokkoo yàlla ni seen lépp lu baax di yokkoo waaye ni muy yokkoo it yàlla na seen yëpp jafe-jafe adduna di wàññi ko ëllëg nag moom séntuwuñ ci séntuwuñ ci jafe-jafe ndax Sëñ Tuubaa lañ fa yaakaar. kon jafe-jafe yi ñii ñaan mu wàññi moom da doon jafe-jafe àdduna waaye ëllëg moom Sëñ Tuubaa lañ fa am te Sëñ Tuubaa kenn da ko fa am di fa am jafe-jafe kon nag jërë jëf bisaab moom doy na sëkk sëkk sëkk sëkk mel na ne la ñu andi woon daaw bi mu jeexee léegi matagul fukki fan kon mel na ne bu daaw ba ak bu ren bi fekkente nañ liggéey yépp nag yu ngeen di liggéey noonu la demee nii muy fekkantee nag yàlla na ni xéewal yi di fekkantee tey fuloo nii tey yokkee nii ba faw ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax di nag te na ngeen daan doxe ci biir koor gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.